الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق سببا للفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن المكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها خلق الصبر فقد أثنى الله taala ala sabri wa ahlihi wa madaxahu wa amara bihi wa allaqa alayhi xayra dunya wal axira wa yakfi fi fadlihi qawluhu alayhi salaatu wa salaam attaa'imu shaakir bi manzilati saa'imi saabir وقد علق الله سبحانه وتعالى على الصبر الجزاء بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب wa jaala fawza almuminina yowma alqiyama jazaa sabrihim inni jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum hum alfaizun wa sabru ayuha alixwa huwa xabsu nafsi an fiali an fialin laa yaxsunu wala yajmulu sharcan wala aqlan wa yanqasimu sabr ila thalathati aqsam kama qala cheikhuna radiallahu taala anhu wa minhu yaa axi yaa axi sabru ala ibadati rahmani jalla wa ala wa sabru fi musibatin lakin lada sadmatiha al ula bi qawli man hada wa minhu sabru shaxsi amma nuhiya wa an jamii alshahawati faiya وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الصبر في هذه الآية يقول innama yatadakkaru ulul albaab alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almifaaq walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqaamu salaa wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya wa yadra'uuna bilxasanati sayyi'a ulaa'ika lahum uqba daar wa warada fi fadilati sabri nusuusun kathira min alqur'ani wa sunna qaala alimaamu ahmad zakara allahu subhanahu wa taala alsabra fi lqur'ani fi tisina mawdian faqad amara allahu taala bihi fi qawli wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir li xukmi rabbik wa naha amma yudadduhu ka qawlihi wala tastajal wala tastajil lahum wa qawluhu wala tahinu wala tahzanu wa allaqa alfalaaxa bihi yaa ayuha alladina amanu sbiru wa saabiru wa raabitu wattaqu llaha laallakum tuflixuun mbokk yu tedd yi ñoo ngi tàmbali suñuy kàddu di sant suñu mi nga xamee ne moo def makaarimul euh, di jural nit ki texeg àdduna ak àllaaxira nekk sabab ci texeg àdduna ak àllaaxira ndax moo wax ci alquran ne képp koo xamee ne sellal nga sa bakkan fexe ba sellal ko ci bépp jikko boo xamee ne rafetut waaye euh, def ci bépp jikko boo xamee ne jikko bu rafet la na nga xamee ne yaay ci texe ñoo ngi koy sant cant gu méngoo ak màggaayam di seede ne amul benn buur boo xamee ne jaamu ko dana jur njariñ ñàkk ko jaamu jur lor ku dul moom di musli ci moom suñu bon boni bakkan di sàkku ci moom ndimbal di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di seede ne ndawam la te ab jaamam la mbokk yi tedd yi bokk na ci jikko yi nga xamee ne suñ borom daf ñu caawoo mooy muñ suñ borom dafa tagg muñ ci alquran tagg ñi nga xamee ne ñoo melowoo muñ waaye digle muñ ci alquran euh, gàll ci muñ yiw àdduna ak àllaaxira doy na sëkk ci ngëneelul muñ wax ji Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wax ne na ngeen xam ne ñi nga xamee ne ñooy jëfandikoo xéwalu suñ boroom di di boole ci di sant yàlla ñooñu de seen maqaama moo ki nga xamee ne day woor di muñ ñoo tolloo kon bu fekkee nit ki xéewal gi ko suñ borom jox daf ciy xéewalu waaye nag di ci sant suñ boroom moo ki nga xamee ne suñ boroom dafa nekk di woor waaye di muñ ñoo tolloo daraja muñ suñ borom def cee aj pay goo xame ne amut fu mu yem ndax nee na ñi nga xamee ne ñooy muñkat yi de suñ boroom bu leen dee fay fay gi du am ab lim innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaab ñi nga xamee ne ñooy taxe yowmal qiyaam suñ boroom day wane ne la leen jural texe gi mooy ak muñ goo xamee ne dañ koo nekke woon ci àdduna moo tax mu ne eh, li ma leen di faye day li ko waral mooy muñ goo xame ne yéen ngi ko nekk woon ci adduna muñ nag mbokk yi tedd yi mooy eh, ñu téye suñ bopp ci jëf joo xame ne rafetut ci diine wala cim xel lépp loo xamee ne xel rafetluwu ko wala diine rafetluwu ko ñi bañ koo def loolu mooy muñ mooy téye suñ bopp ci bañ a topp ay bànneex waaye téye suñ bopp ci bañ a topp mer ndax ku ci nekk ci ñun bakkan bu bu nekk lépp loo xamee ne daf koy jural bànneex daf koy bëgg waaye lépp lu koy jural metti itam daf koy bañ daf koy foñ waaye fexe ba téye sa bopp nag ci bànneex boo xamee ne dafa naqare suñ boroom waaye ak nar boo xamee ne dafa naqare suñ boroom loolu mooy muñ sëriñ Tuubaa lañ nee ne muñ ñetti xaaj la bokk na ci bu njëkk ba mooy muñ ci musiba suñ borom bu la tegee lu metti nga muñ ko waaye nag ca kell ju njëkk ji nan koy waxe maanaam ca njëlbeen ga jël njëlbeenu musiba ba waaye bokk na ci muñ jaamu yàlla ndax ku ne xam na ne jaamu yàlla ay métit daf caa nekk dafa metti ci bakkan li suñ boroom santaane lépp neexut ci bakkan kon bokk na ci nga muñ ngir man koo joxe ne ko suñ boroom bëgg waaye bokk na ci muñ itam nga muñ tere yi suñ boroom yi ndax tere yi yi ci ëpp dafa dëppook ay bànneex kon ñetti façon muñ yooyu moom la Sëriñ Tuubaa wax ne moo am yooyu yëpp nag am na aaya boo xamee ne suñ borom daf ko ca daf ko caa dajale ndax mi ngi wax ci alquran ne eh, ñi nga xamee ne ñoo may fàttaliku mooy ñooy borom xel yi ñi laaj ko ana ñan ñooy borom xel yi mooy ñi nga xamee ne eh, li nu teg suñ boroom engagement bi nu def ak suñ borom dañ koy matale ba mat sëkk waaye itam loolu engagement boobu duñ ko fekk ci benn yoon li leen suñ borom digal ci ñu jokk ko lépp dañ koy jokk moo xam dañuy jokk ak mbokk walla digle yi nga xamee ne suñ borom daf koo santaane dañ koy def waaye dañuy ragal musiba dañuy ragal Euh, suñu boroom ragal mbugalam ci bàyyi ay tereem waaye itam dañuy muñ ngir sàkku ngërëmul suñu borom ci jëfe ay ndigalam ak di bàyyi ay tereem waaye dañuy muñ ci taxawal julli ci def ko ni ni na ne noonu la ko suñu borom santaane waaye ak ci joxe seen alal ci kaw ak ci suuf ci lu feeñ ak ci lu nëbbu waaye dañuy muñ ci képp koo xamee ne daf leen a tooñ duñ fayu waaye dañuy jéggale nee na ñooñu day ñoom la ak texe ñeel mbokk yi euh, muñ ay yu bare bare bare ñëw na di wax ay ngëneelam bokk na ci rek suñu boroom daf koy digle ci alquran nee na di digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko na nga muñ te muñ gi mu muñ dul ko def lu dul jëmmi suñu boroom bu dara tax ngay muñ lu dul jaamu yàlla mi ngi koy waxaat ne ko lépp loo xamee ne suñu boroom atte ne ko dogal na ko ci yow na ko muñ wasbir li xukmi rabbik te lépp loo xamee ne dafa safaanoo ak muñ na ko sori te bokk na ci la safaanoo muñ mooy yàkkamti yàkkamti wala saalin wala wane ak doyadi wala wane ak njàqare yooyu yëpp dafa safaanoo ak muñ suñ boroom dafa aj ci muñ texe àdduna ak alaxira nee na ñi nga xamee ne gëm ngeen na ngeen muñ tey ragal yàlla ndax ngeen texe pay gi mu aj ci muñ tuyaaba ji amut fu mu yem wutulu ko ab dayo ndax suñ boroom ku ne xam na ne buy jëflante ñun ci suñuy jaamu yàlla nga ne lay jëfandikoo waaye buy jëflante muñ buy jëflante ñun ci suñuy mooy ak maandoom lay jëfandikoo moo tax képp ko xamee ne dafa def lu baax suñ borom daf koy fay fukk waaye ku def safaan ba suñ borom amul safaan daf la koy delloo waaye muñ nañ pay gi lay suñ borom di fay ci muñ amut fu muy yem nee na daf koy jóor mi ngi wax itam ne du jiital kenn def ko kilifa lu dul koo xamee ne dafa nekk koo xamee ne dafa mën a muñ dafa yor jikkoy muñ wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun ngëneel yi nga xamee ne dafa nekk ci muñ cheikhul xadim daf koo daf ko leeral daf koo dajale leeral ñu ngëneel yi nga xamee ne moom la muñ làmboo nee na bokk na ci ngëneelil muñ képp koo xamee ne dangaa sàllaw muñ suñ borom daf lay musal dangay mucc ci àdduna ak àllaaxira waaye itam nee boo nekkee muñkat suñ borom day faj say aajo aajo joo am suñ borom daf koy faj moo xam aajoy àdduna wala aajoy àllaaxira waaye suñ boroom daf lay may kàttan dafa lay dimbale ci say noon boo nekkee am muñkat kat say noon duñ la mënal dara waaye suñ borom daf lay def kilifa daf lay jiital ci sag maas ni ko aaya bi waxe waaye itam suñ borom dafa tagg muñkat yi daf leen a tagg bokk na ci lam tagge sayduna ayub lam ko tagge mooy inna wajadnahu saabira niamal abdu innahu awwaab nee na sayduna ayub suñ borom daf koo teg ay natt yu metti ci yaramam waaye daawul jàmbat daf daan dafa nekkoon koo xamee ne ku muñ natt suñ borom yi la moo tax suñ borom tagg ko ci alquran kon muñ def lay jural suñ borom di la tagg waaye bokk na ci li muy jural nit ci mooy suñ borom daf lay bëgg inna allaha yuhibbu as-sabirin waaye bokk na ci li muy jural nit daf koy jox tiyaaba joo xamee ne kenn du xam nam toll ku dul yàlla waaye bokk na ci euh, la muy nit ki mooy mbégte ak julli ak yërmaane ak texit àdduna ak àllaaxira ndax suñ boroom moo ne wa bashir sabirin alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun cheikhul xadim nag dafa nekkoon royukaay royukaay ci maqaama bi gën a sore maqaama bi gën a kawe ci muñ sa cheikhul xadim royukaay la ci nekkoon te loolu mooy sant ci balaa yàlla teg la balaa nga jéggi muñ waaye danga koy sant ca balaa ba ndax lu suñ borom def rek xéewal la ndax balaa mooy jur xéewal am natt mooy jur xéewal yàlla bala laa sotti ci aw xeel xéewal faw daf lay natt ba xam fan la sa pas-pas toll fan la sa ngëm àgg bu xamee ne yow mii ku dëgër ngëm nga xéewal yi nag soog di soog di ñëw moo tax Sëriñ Tuubaa bokk na ci ñi nga xamee ne dañ daan sant ci balaa sant ci ay nattu te loolu li ci firnde mooy xasida gi nga xame ne bi mu koy taalif mooy bi muy wujji tubaab yi bi muy dem ndar muy asiru maal abraar yi foofu xasida googu de suñ euh, cheikhul xadim daf ciy feeñal mbégte mu mu am ci napp bi ko xamee ne suñ borom moom la ko teg te boobu àggagut kat te booba ñëpp xam na la koy xaar xaar na euh, la koy xaar mooy ñi àtte ko jël bakkanam wala yóbbu ko te dootul ñëwati loolu rek moo ko doon xaar ci àtte ba waaye moom def ci daa sant suñu borom lahu tubtu daa bayin wa arju ridaahu wa minni lahu shukrun yaduumu kathiru fa jitu bi bishrin minhu abgi shukurahu alayhi safaan wal mukuufu xubuuru wa fi lqalbi min ridwaanihi maa ukimnuhu daninan bihi inna suduura xubuuru na maa ngi tuubal suñ boroom ndax ñoom ñoom gaa yu baax yi ñoo ñi nga xamee ne ragal suñ boroom duñ tàggoo ak moom saa su nekk dañuy ragal suñ boroom waaye maa ngi koy sant maa ngi ñaan mu may ma kattanu ma di ko sant sant goo xamee ne day sax ba day sax dàkk nee na mbégte dikke ma mbégte moo xamee ne nag suñu boroom rek laay ñaan mu may ma kàttanu cant ko ci mbégte mii nga xamee ne moo ma dikkal nee na sama xol bi li ci nekk ci gërëm suñu boroom ak ci cant ko kenn xamul toll kon Cheikhul Xadim royukaay woon ci muñ ci maqaama bi gën a sore ci muñ te mooy li la teg suñu teg ci ay nattu yëgatoo ci mettit waaye bànneex nga ci yëg yàlla nañ ci yàlla dimbale allahuma jaalna min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa azimi sultanihi نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن فوائد الصبر ما ذكره شيخنا رضي الله تعالى عنه في كتابه مسالك الجنان منها النجاة وقضاء الحاج هنا وهنا دون استدراج ونيل مكنة غدا وغلبة على العدا فلتصبروا يا طلبة تقدم على الورى الإمامة ثناء ربنا مع الكرامة منها محبة الإله والثواب بلا نهاية لكل ذي احتساب منها بشارة صلاة رحمة والفوز في الدنيا ويوم الغمة وكان شيخنا qaddasallahu ruuxahu qudwatan wa unmuzajan fi ala maqaamaati sabr wa hiya shukru ala albalaa'i bi ictibaari anna fihi nicma wa in xafiyat fa kaana mimma qaalahu tacbiran an shukrihi lillahi subhanahu wa taala qasidatuhu arraiya allati ibtadaa nazmaha fi ndar wa atamaha fi lbaxri fa kaana yashkuru llaha taala ala ma ala ma yusbar alayhi fa innahu fi hada al awaan fi fi ashaddi al balaa wa fi sadmati al ula qila kullu cheyin yabtadiu sagiran summa yaazumu illa al musiba fa innaha tabtadiu azimatan summa tatasagar wa mima qaalahu lahu tubtu daa bay'an wa arju ridaahu wa minni lahu shukrun yaduumu kathiru fa jitu bi bishrin minhu abri shukurahu alayhi safaan wal mukuusu xubuuru wa fi lqabri min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi inna suduura qubuuru li mawlaaya xamdi raadiyan anhu shaakiran ala sirri sirri wal xabiiru xabiiru raditu bihi rabban yusaxiru ma yashaa liman shaa bitaysiir wa huwa qadiir allahuma jaalna min alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina cadaaba annaar بلغ صلاتي وتسليمي عليه له في الآل والصحب والأزواج يا الله وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله وصل بنا نهج رشد واكفنا زللا وتركنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم